comme mbokk internet ci safo 24 actu tey jii nag ñu am mbégte di leen jukkil actualité people yi ñu koy dooree ci Fada Freddy euh, bu Daara ji J Family moom Fada Freddy nag di artiste chanteur euh, ci benn émission bu mu doon amal ak euh, kii di Bouba Ndour ci émission boobu le di tour avec di am foofu le ci télévision Futur Média moom Fada Freddy nag ñu gis ne bokk na ci chanteur yi nga xamante ne ñoom la ñu gën a respecté dans ce pays ba tey benn wax bi rek la ñuy dégg ci moom muy qu'il est humble et courtois moom Fada Freddy nag selon lui sa son secret c'est a bon éducation. ci entretien boobu ba tey euh, moom de Fada di mi nga xamal nit yi ne euh, artistes yu sénégalais yi ñu ngi euh, bay seen waar ci réew mi looloo tax moom mu dem ba extérieur di fa wane boppam moom itam. ay dañu dem ci Mbaye Diagne de joueur de Galatasaray moom nag avoué na enfin son idylle avec l'actrice Soumboulou li moom nag boobaak léegi ñu ngi leen doon waxal naan dañuy génn waaye nag Mbaye Diagne daal di ne koy dëggal ci benn entretien bu mu doon amal ak waa observateur selon Sénégal moom Mbaye Diagne nee na du mariage am du trahison parce que avant euh, quatre ans avant muy xam sumbulu xamoon na jabaram donc euh, te it waxtaanoon na ci ak ki nga xamante ni moom mooy sumbulu donc loolu gisu ci benn trahison ñu dem ba tey ci Ouzin Keita borom bërëng bërigo moom Ouzin nag euh, cette fois ci bërëng na suñuy valeur bu ñu sukkandikoo ci waa Sénégal moom Ouzin Keita ci première soirée live am mu doon amee foofu ci CICES CICES di def mille places waa Dakar Media Prod organisé woon ko ñu gis ne nag Ouzin Keita Satan n'a même pas ak accueilli le quart de de spectateurs euh, ñu gis ne itam euh, moom Ouzin Keita defati na mëninam après xeesal bi ñu ko doon jiiñ dafa daal di sol li nga xamante ni moom mooy yëre jigéen kii di euh, Ndeye Gueye nag ñëw na ci ba ne Ouzin Keita c'est pas la première fois muy sol li nga xamante ni moom mooy yëre jigéen. Eh, ñu dem ba tey ci euh, troupe Soleil Levant ñoom nag ginnaaw bi nga xamante ni Binta sàmb ak euh, Ndey Kumba Jaara dem nañu Màkka kii di Cheikhouna dans la série Wiri Wiri euh, turam dëgg di assis ñaan moom moo dem Màkka ba doon nañ ko nganale sax ci nganale googu ba tey benn wax bi rek ngay dégg muy que ni ku baax la waaye itam ku yaatu la ñu koy ñaanal kaala gi yàlla na ràpp ak jàmm waaye itam ci nganale googu ba tey la ñuy desandi ndax gis nañ fa ki nga xamante ni moom mooy Jeewo Sow nekkoon actrice ci waa troupe Soleil Levant moom nag euh, bi ñu ko laaj lan moo waral gisatuñ la ci euh, euh, scène théâtrale bi dafa wax que ni dafa bàyyi parce que dafa nekk ci sëy ñu dem ba tey ci le lion de Guédiawaye Balla gay 2 moom nag nee na forcé wul pour bëri ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo roi des arènes ginnaaw benn waxtaan bu mu sekkoon ak Lamine Samba ci émission boobu la di bi di am foofu la ci télévision Futurs Médias moom Balla Gaye nee na bébétam moom mooy mu jël couronne des arènes bi waaye nag comme que Modou pare pareegul pour bëre ak moom dafay respecter décision wam ñu dem ci les All Africa Music Awards Afrimas on euh, ñoom nag euh, on dévoilé la liste des artistes nominés euh, par raison dans dix catégories liste boobu nag ñi ngi ko dévoilé ce mercredi 14 août la cérémonie de remise des prix aura lieu en novembre ñu gis na nag liste boobu gisuñu ci benn chanteur sénégalais bu ñu sukkandikoo ci waa Sénégal ni même Viviane mi nga xamante ni moom moo représenté woon Sénégal 2017 2018 donc donc fi la ñuy yem ak yéen ci actualité people yi di leen jox dig daje fii ci 24 actu ñu jukkee leen li nga xamante ne mooy gën